asalaamaaleykum waa groupe soutenir Adji Sarr maa leen di nuyu yéen ñëpp bàyyiwuma kenn di leen sant di leen remercier bu baax a baax a baax di leen wax ni awma seen fay ndax lii nag yombul di ngeen ma comprendre ndax mënuma wax ay Aïssatou saax ak Famara expliqué nañ ma lépp mais gis tamit lépp li ngeen xamante yéen a koy def yéen a koy wax c'est pas facile tamit ngeen nekk ci réseaux sociaux yi nga xam ne instant yi ku ma wax di ma jàppale ñu lay saaga xooloo leen loolu yépp am na ci yéen yoo xam ne xam naa leen am na ci yéen yoo xam ne xaw ma leen ngeen may jàppale rek te yàlla tax yal na leen yàlla fay ma leen di wax ne lenn rek laa bëgg ngeen xam wax ji bari na lool. te lépp loo xamante ne wax nañ ko ci man du dëgg ñu ngi wax am naa doom mosuma am doom mosuma sëy sax bay am doom far bu mën naa wax ne far bu assuré sax mosuma ko am bay am jëkkër wala may far bu ma war a ëmbal wala jëkkër bu war ay foo tante yi wax ma ci kenn ñi wax ni samay tante la ñi di wax am naa doom ñi di wax samay xale xawma ci kenn te ñuy wax ñépp wax ci bari na trop nag metti na trop nag mais dama jël lépp delloo ko ci yàlla suñu borom xam ne moom moo xool moom ma xool ba mu doy mi bu ma doy ko mu teg ma nattu bi ma nangul ko ko lool tamit xam ne jaam rek la matuma yàlla matuma yàlla jaam de waaye yàlla mat na ma buur ma leen di remercier waat bu baax a baax a baax di leen wax ne lépp loo xamante ne jaaxal na leen rek bu ngeen ma ko bëggee laaj rek ma porte est grande ouverte bu ngeen ko laajee tata Aïssatou dina ma envoyé message bi après dinaa leen si tontu bépp wax boo xamante nit wax na ko ci man muy kay sëy naa am naa doom parce que tamit loolu xel sax waru koo nangu koo xamante ne dafa am doom taxaw carrément di wax ne dafa vierge wala quelque chose comme ça xel warul nangu loolu. su leen neexoon tamit lii yëpp du leen ci fekk ndax amaana sax mën ngeen ne xawma ko walla gisoo comme ça mais yéen ñëpp dangeen taxaw jàppale ma rek te yàlla tax lii rek ay wone ne am na ñu tuy am ñu tuy dëggu ba léegi ma leen di remercier nag baax a baax a baax a baax di leen ñaanal yàlla yal na leen yàlla sàmm te àll leen ci barke Mawlana Cheikh Ibrahima Niass